kàddu rek ci wolof d'abord euh, di nuyu kilifa yu xombal bi ñu ñëwee di teg première pierre bi kenn sañul woon teg te imaam ñëwuloon ñaan ñu door a teg xeer bi bon li ñuy def teg nañ ko ci foo xamante ne fu wér la mag ñi ñaan si loolu mooy firndeel ne dans huit mois incha allah danañ ñëw tax taxaw fii inaugurer complexe bi parce que li jiitu ci complexe yi mooy ñaan bon dëkk imam ak association des imams de Khombole ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax bu ma nuyoo imam ba pare door a dem feneen dëkk dafa am fu wér fu ñu ko teg parce que dañu xam ne rôle bu mag la ñu ñoom ci dëkk bi moo tax seen ñaan jiitu ci mbir mi monsieur le maire ñu ngi lay euh, nuyu bu baax di nuyu maire département bi ci turu ñi leen représenté tey muy Mamadou Thiaw ak suñu xarit Daouda Tine di nuyu monsieur le préfet monsieur le commandant brigade ñu ngi lay nuyu ak ñi fi toggal nguur gi yépp parce que maire bi rek mënul dem bu ko nguur gi ñi ak ñi ko fi toogal gungewul loolu la ñuy wax décentralisation toujours déconcentration moo koy gunge bu ma gisee lu taxaw fii donc préfet ànd ak maire ànd ak autorité yëpp dañ suñu xel day dal maa ngi nuyu ñëpp di wax ne nag li ñu def fii tey si xombal di ko def partout dans le senegal kenn moo ko waral yaakaar naa ne maire wax na lu bëri si moom loo xamante ne foo toog si Sénégal ñu wax ko parce que wolof dafa wax ne lu ne gàññ kenn du ko jeex képp koo xamante ne yaa ngi si réew mi rek gis nga li fi son excellence le président Macky di def tey nag dañoo ñëw parce que cëru xombal la dañoo ñëw indi lenn si cëru xombal maire am na loo fi wax tey mooy li ñu indi mais ëllëg te peut-être ba ñu jëm wala feneen bu kenn yaakaar na rek mbir mi xomboon rek la yem partout dans le pays ñu ngi fay def lu mel ni loolu dafa firndeel rek ne ki xamante ne sénégalais yi dénk nañ ko réew mi en 2012 wax dëgg yàlla askan bi moo ko tax a jot dem seeti askan bi fa ñu nekk laaj leen lan ngeen soxla mu indi ko defal leen ko fa ma leen di ñaan rek ngeen jàppale ko ma leen di ñaan ngeen téele ko ma leen di ñaan ngeen vigilant gis nga sportif yi dañuy wax ne on change pas équipe qui gagne loolu nag dans la vie de tous les jours dañ koy dundee am nañ kilifa goo xamante ne ku mat kilifa la mu ngi dox di dem seeti population yi pour indil leen li ñu bëgg pour fajal leen seeni soxla tey nag monsieur le maire vous me permettrez effectivement de terminer par une conclusion politique c'est pourquoi je vais pas dire monsieur le maire je vais dire chers camarades biñ lay fal ci réew mi biñ lay fal fii ci ci Khombole beneen liste nga ne woon bon nag tey bu ma ñëwee fii ne la chers camarades dama la war a wax merci chers camarades parce que boo nekkee ci xare boo nekkee ci xare jàmbaar jóge fële ngay armam ñëw ne la maa ngi ci sa boor rejoindre naa sa armée pour que ñu gën a mën a xeex danga ko war a wax merci donc maa ma la waxee merci ba léegi ba pare dama lay wax ne jëlal sa gannaaw nga yaatal nga boot ñëpp bootal ñëpp parce que fa ñu jëm on a besoin de tout le monde fa ñu jëm on a besoin effectivement ñu yaatu gannaaw mën a boot ñëpp toog nañ ñetti yoon waxtaan xam naa ci sa kàddu ko ne kilifa nga xam naa ci sa kàddu ko nit woyof nga te gëm naa ne magu xombal yi ma gis ñu toog bu réew ñu benn yoon ànd ak yow si manifestation bu mel nii wóoru nañ la te mag dëgg fu koy foofu mag fu mu toog mag fu mu toog si lu mel nii rek c'est parce que caaxaan amu fa bon dëgg maa ngi lay féliciter encore une fois di la encourager dans huit mois incha allah danaa demande monsieur le président de la république moom si boppam mu ñëw inaugurer ce grand complexe pour les populations de Khombole merci beaucoup.